laay dëggal duñ la mayoon naa la démb duñ la mayaat pare duñ la may ba pare tëg bët ki ñaan seen jàmm yàgg maam téye ko waaw il faut nga tëkkat rek waaw maaye ma ma maam may ma zaal tuuti zaal zaal dégg naa dañ la ramassoon ci mars bi <laughs> moo zaal moo zaal moo zaal pambay nga pe bi indi programme na ben mo zal mo zal mbay mo rek fu ne ni ma lay woyaan mo zal mbay bañ la jël bañ la dugalé ci auto bi no def waddu ko rek rek ay zal zal zal zal man mës nañ ma ramas mëna ko place soirée lañ doon def ñu ramas ñu ñun ak ñom ngañ demba ngañ demba mi mi mi gaañu Zal mbay keroog dama damay yuuxu di jooy biir central ba commissaire bi dafa ne nañ génn ñëpp ñu ñibbi <laughs> commissaire bi keroog keroog prisonnier yëpp lañ bàyyi ndax man ma yuuxu naan wooy surtout nag boo waree saw wala nga war a dem duus jàkkaarloog nit ñi fiñ toog fa nga tëdd nga nit ñi a dem duus fañ tëdd ma ne duma ko duma fi fanaan non kaso Sénégal baaxul xeso Sénégal baaxul dem yombal xiyaama ma ko gënal. ngay lekkee fa fa ngay naane. maa yuuxu. di yuuxu. billaay wallaay. ba pare téeméeri nit téeméeri nit ci benn néeg téeméeri nit ci benn néeg fa la ñëpp di demee duus fa la ñuy lekke fa la ñuy defee lépp xetu saw gi mandikat di soirée. <laughs> ci biir <laughs> géezmaani géezmaani di ko di ko dara. dañu rey mbaye rek dafa time ci biir kaso bi. man de <laughs> duma ci guddi gi lañ ma baax yow tamit kaso Sénégal loolu tere. waaye kontaan nañu nag loolu bëggoon naa ko waaye na la yàlla defal jàmm. amiin yàlla téyel boppam maam Ndiaye. amiin am nañu bés la boppam suñu nga xam ne mooy sàmm. maam Ndiaye day gagné. ndam bi koy ma ñaanal mais ma ñaanal sama rakk ji Oumy Thiam ma chérie parce que man iñaanuma soxoruma xolu jamaa laa yor. dëgg la su ma la ñaa su ma la ñaanalee day dal ndax duma ma duma du ma jaam du ma dëmm du jaam du gor benn. dama ngi lay ñaanal ci suñu borom bu baax bi nga xam ne.